Thank you. topp xibaar 24 euh, ñu ngi koy faral di defee mu doon ay découverte ci gox yu fasante ko ci biir réew mi tey jii ñu ngi ci biir euh, gox bi ñu naan Njaaroon euh, nekk ci arrondissement bu Sessène commune bu Nguéniène ku ñu Nguéniène sa xel dem ci rahmatullahi taala Ousmane Tanor Dieng yal na yàlla yokk leeram ba tey ji nag li ñu fi tax ñëw bokk na ci saytu dëkk bi xool ka xamal ko ñi nga xamante ni ñooy la population sénégalaise ak monde entier mu nekk dëkk bu am taarix. bu yàgg bi ñu ñëwee ñoo ngi taseek euh, chef de village bi dellu si ne nag euh, si lu bare li nga xamante ni moo ñeel dëkk bi si wàllu euh, taarix ak nin ko sosee. man Waly Diouf chef de village ci histoire Njaaroon nga may laaj li ma ci xam bariwul parce que xale laa mais li woor mooy fii laa juddoo man ki ju nijaay sama papa ma jur mu ngi tudd Waal Njew fa ji fa caax. moom mu ngi dëkkoon siin mais li ko andi fii benn histoire la woon moo xam ne moog tubaab bi nekkoon Fatick temps boobu tubaab tubaab ay tubaab ñoo colonisé fii tubaab boobu dafa doon ñëw siin bu ñëwoon siin dafa doon jëng mag yi jàpp ko jëng la tegle la fa si ñaat bi booba nu jaay sama sama papa ki tudduwaal Ndew dafa sami woon ay nag mais bi ñu jëngee mag yi ci dëkk bi après teg leen ci naaj bi boo mu ngay sàmm am benn xale bu ñuy yónni mu daw ci moom bi ñu demee mu ne sa nijaay dañ ko jëng mu nga sa ñaaj ba mu ne kan moo ko jëng mu ne tubaab mu bay nay après daw keroog bi mu fekkee bi mu fekkee foofu tubaab bi tubaab bi déggul séeréer déggul leneen mais bi mu fekkee tubaab bi def ko door ba mu ñibbi ba daw même même séeréer yi nekkoon foofu ñoo mu a jàpp tubaab bi ñoo ko mujj a aw jàpp ko léegi tubaab bi xam nga déggul séeréer mais bi ñuy jàppi waali mi ko doon door ñu ngi wax naan waal ndew ay eh waal ndew toogal dinañ la jàpp de waal ndew toogal dinañ la jàpp de moom bi mu demee loolu la bind waali toogal waali toogal ay bayil tubaab bi dinañ la jàpp loolu la bind ci booba nag la ñu gàddaay ñu jóge siin après ñëw fii booba fii lépp forêt la ay forêt la ñu jóge foofu après ñëw ñëw gis nga fi nekk dëkk bi tudd lew na fi Ahmad Bakhoum dëkkoon foofu la njëkk a dal mu noor foofu nawet foofu ba nawet bi gën a mu door a compter ñëw fii kër gi mu njëkk a dal mu nga fale ci kër yàlla mooy waal ndew doom mi mu jur foofu moo jur amat bu mag jur amat bu ndaw ak jaga yaande dégg nga ñooñu ñoo nekkoon doomam ñooñu ñoo nekk kàll suma doomu ñu jaay sama sama kii sama papa sama papa moo nekk seen kal nit ak doomu ñu jaay bokk yi ku ni nag njaaroon comme ni nga ko waxee dëkku histoire la bare na lool ay ron ron yi nag am na lu muy findeel ndax nee nañu ron yi bokk na si lu tax ñu tuddee dëkk bi njaaroon ndaxte borom dëkk bi dañu wër jóge woon siin di ñëw ba agsi fii si la toll si ron yi soogee nag sanc dëkk bi chef village bi nga xamante ni moom mooy sëtam mi ngi dellu si si euh, taarixu dëkk bii. li waral njaaroon. mais ñooñu bu ñu ñëwee fii dañu fekk ñu jiitu woon fii ñu dëkkoon Saalum maanaam fi ñuy wax mbéy a ah, mbéy ñoo ñoo njëkk a samp mooy fale Kër Malick ñoo ñëw fa samp waaye histoire boobu nag nu mu demee man su ma ko waxee dinaa la wax lu ma xamut parce que dañ def ma def ma mag non waaw mën a nekk sax parce que dafa am ñoo xam ne xam nga lef bu amee dañ koy wax lu nekk da ngay dégg ñuy wax naan njaaroon boo déggee njaaroon yoon di ñoo tax ñuy wax naan njaaroon njaaroon am na ñi ko wax mais am na ñeneen ñoo xam ne waxuñ loolu te man loolu def ma mag mbéy la ñu yaakaar mbéy ak tamit la ñu yaakaar amatuñu àll àll bi jeex na nag mën a ci fi nekk même ñi fi am nag jolof la ñuy naweti ñoom ñu ngay dem jolof am na yeneen jafe-jafe lu si mel ni wàllu tamit wér-gu-yaram case de bii ngeen di gis nii population bi dëkk fii ak li ko lépp fi la ñuy fajoo te benn nit nee nañu moo fi xëy di fi yendu di fi fenaan dëkk bi tamit amul courant portable yi ne nee nañu marché luuma la ñuy dem àllarba àllarba buñ ko chargé dañ koy sakkanal di taal di fay mu mën a durer trois jours loole nag jëyee la bu urgence ñëwee dana indi yeneen jafe-jafe li naan nettali si Lamine boo xam ne daa xëy ñu déglu soxna si mu indi kon ñu teewlu témoignage yi. sa whatsapp yow dangay am deux jours doo am sax. sa sa portable day fay waaw vraiment fii suñu amuñu courant fii njànd jege nañu mais njaaruñ olof ngi nii fii jege nañu ñun dañuy dem ba njànd ñuy dem ba njànd pour charger suñu portable wala mercredi ba mercredi ñu dem dëkku Tanor Dieng luuma bu ngeeñan ci la ñuy dem ca luuma ba marché ngeeñan pour charger rien que pour charger sa portable ñëwaat vraiment mu duure à peu près ay trois jours 4 jours ndaxte dangay ngay balaa timis nga fay sa portable. di économiser pour suba xam nga loolu tamit problème la su ñu amee urgence tamit yenn saa da gis koo xam ne urgence am na fi mais du ñu xam fu ñu koy waxee da gis dëj boo xam ne da war a woote doo mun a woote ndaxte amoo courant te léegi dépassé nañ avant dañ doon yëg ay fas di yëglante ne diw dee na diw dugg na fii génn na fii mais léegi xam nga loolu temps boobu nekkatul léegi portable yi mooy dox moo ñuy doxal soxla vraiment ñun courant moom nekk na loo xam ne ah. poste santé case de santé dañu am gis ngeen ko gis nga case de santé baa ngi nii doxul mur bu baax sax amu ko moo ngi nii ngeen jàkkaarloo personnel ba tey matron lañ lii lañu am amuñu matron naka forage amul fii ndox de teen yi la ñuy jëlee ndox à part ça robinet yi te gis nga ndox bi sax motul doyul benn la sànni fii benn robinet public beneen ba fee facture yu cher na cheraay boo xam ne ku robinet yëpp a tëj robinet yi tu ñoo tëj ndax facture bi dafa cher te ndox bi du ñaw waa mun nga def ay 3 4 jours doo am ndox te facture bi bu ñëwee day chair bala ñuy tëj dañuy ñaan dañuy ñaan di encourager la gouvernement si nii mu taxawee ngir xeex balaa bii di jàngoro bii di coronavirus ba nga xamante ni que wi yëg nañ ko fépp partout partout mu doon lu am solo ñuy ñaan tamit nit ñi ñuy mën dugal seen loxo si xeex bu ni mel di raxasu. di moytu yenn tamit ndaje yi nga xamante ni mën na indi yenn jafe-jafe yi lépp loo xamante ni moom la nguur gi santaane jaare ko si service yi nga xamante ni ñoom ñooy service compétent yi ñu koy topp su ko defee lii danoon mën a abal ñu mën a dund dund bu yemb mag ñi nag ñu ngi ñaan ñaan moom dafa fekk baax Sénégal na ñëpp multiplier ñaan yi si biir jàkka yi si biir kër yi ñu boole xol yi classe politique bi tamit gën a joxante seen loxo su ko defee li ñu bëgg dinañ ko am incha allah xibaar 24 TV moo ngi leen di jaajëfal fii si Ndiarone nekk si arrondissement bu Sessène commune bu Nguéniène commune bu Nguéniène ak département de Mbour jox leen daje ba ba beneen yoon si yeneen jotaay jaajëf.